nga xam ne ñooy waa SODAF ngir ñu auditer SODAF càmbar ko ndax SODAF munu fee nekk yor ay milliards yoo xam ne kenn du ko lijjanti yéen kaay gi di enquête mu ñu xamal naa ñu en tout cas li am ba des daal acteurs yi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum culture daje woon nañ ci musée des civilisations waaye nag wax nañu li nga xam ne maanaam moo leen naqari jamono ji ak coono bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne état bu moo leen ko teg kenn si ñoom di Matar Diouf la mu xamle nee na état bu Sénégal li muy rey coronavirus reyu ko ba muy daane la Ngoone Ndour di jël kàddu la mu xamle nee sax man nañoo wax ne coronavirus maanaam virus bi moom dafay nelaw huit heures ba vingt deux heures daal di yeewu vingt trois heures li tax ne daal huit heures ba vingt deux heures nit ñi seen activité lan moo tax diggante vingt deux heures a xañ ñi nga xam ne ñoo yëngatu a kaay gii de la bi nga xam ne ñoo di leen ko jox ni crédit yi at mu jot quinze milliards la woon léegi nag yokk nañ ko ba cinquante ci atum deux a kaay gi nee na Mamadou Lamine Diallo ak député Diop si ñoom dañoo amee woon coronavirus wéer nañu yéen a kaay gi de la Tribune Mamadou Lamine Diallo nee na askanu Sénégal nañu vigilance nañu jël suñu matukaay mesure barrières yi yéen a kaay gi de source a ñu xëy jànge fan réewum Sénégal bor yi nga xam ne moom laa amee jamono ji jéggi na dayo fi nga xam ne fa ko yemloo woon investissement yi nga xam ne waroon nañu koo def ci plan Sénégal émergent du dem céng du dikk mbay laar maanaam naxas lay def yéen a kaay gi nee nag sénégalais yi laay waxal bu ngeen xëyee ñu ne leen njëg yi yokk nañ ko ci réewum Sénégal bu mu leen bett tension de trésorerie yéen a kaay gi de la turbine na nag lu jëm ci wàllum émigration clandestine ak ndaw ñi nga xam ne ñoo jël gaal gi lu toll si ñetti téeméer ci ay ndaw faatu nañ ci ñu dëkk ci aroy yéen gi de la sa nee na bilan bi yëpp ci atum 2020 yi nga xam ne ñoo faatu ci géej gi bi ñu 1993 maanaam juróomi téeméer yu fegg juróom-ñeent fukk ak ñett ñoo faatu ren ji 2020 ci biir ndox mi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Thierno Bocoum ma ngi naqarlu bu baax a baax maanaam yorin wu bon wi nga xam ne moom lañ yore réewum Sénégal ak corruption gi nga xam ne moo wulee ñaay ci wàllum justice ci réew mi yéen a kaay gi de Le Quotidien ñu xëy jànge fa ne Aminata Touré mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon conseil économique social environnemental jamono ji ay mbiram ñoo ngi koy lëmbat ndax inspection générale d'État daat nañu koy sant ngir nag mu lëmbat conseil économique social environnemental na ko Aminata Touré yore woon moom Mimi Touré bi ñu ko laajee na ko jamono ji ñoo ngi lay lëmbat la mu xamle nee na ma ngi xaar waa inspection générale d'État ci ak dal yéen kaay gi délibération ñu xëy fekk fa Abdou Lahad Ka bu Touba keroog bi nga xam ne la ñuy voté budget bu mairie bu Touba toll na ci 4 milliards bi ñu ko laajee lu soxal wàllum taxe municipale nee na am na ay kilifa diina yoo xam ne ñoo ngi ci Touba du ñu fay ay taxe waaye nag mënuñu leen koo forcer xanaa kay yaay nekk kilifa nga xool ba nga xam ne war ngaa fay taxe nga fay taxe waaye nag deux mesures loole warul am fii ci Touba ñii de fay taxe ñii war a bañ a fay taxe waaye nag li am ba des mooy Touba dafa am ay réalité kàddu yu Abdou Lahad Kala yéen a gii di libération xëy na ci fawukaayu xale yi nga xam ne dafa amee won alcool yéen a kaay gi nee na li nga xam ne moom lañ dugaloon ci réewum Sénégal lépp nekk jaay ko bu yàgg-yàgg toll na ci benn waay produi bi Guinée la jógee am nañu bari ñoo xam ne teg nañu leen si loxo waaye nag li nga xam ne moom la ñëpp di laaj ak ko ñaawlu mooy surveillance bu direction du commerce ñoom dañoo wane ak yàfus ci mi yéen a kaay gii di la nee na ñeenti commerçant jamono ji ñoo nga rëbës yéenekaay gi di critique dikk na ci business bi nga xam ne yenn ci ay xale yu jigéen ñoo ngi koy amal ñoom dañuy jekk-jekk wax xale bu góor bi ñu àndal wala kilifa gi ñu àndal na ko dama ëmb nan lay def fekk ëmbuñu waaye nag dañoo bëgg lijjanti xaalis yéenekaay gi nee na loole la xale yu jigéen yi ñenn si ñoom jógtee rawatina nag bu dee da am jabar wala na nga nekk kilifa ci réew mi dañu lay chantage di la wax ne dama ëmb dama ko yàq wala lan laay def su ko defee ngay pat-pati génne xaalis bu weex tàll yéenekaay gi dee sat xëy ñu Angleterre